ñaanalante souhaité vœu ci at mu bees mi ñaar euh, ñi nga xam euh, kañ nañ len président de la République jox len ay décoration ñu takal len sen décoration yooyu looloo taxone ñu dajé fi waaye nak bi fi dajé comme dañuy seet li nga xamné mom lañu la ci at mi passé ak fiñu jëm def nañu euh, bilan 2023 bilan bobu sori wuñ ci torop dañoo wax rek ne suñ ko nattee ci ministère bi ñetti programme la am ministère bi dañ ne ko da ngaa war a indi ndox programme accès à l'eau bi ñu ne ko da ngaa war a toppatoo assainissement ministère bi ñu ne ko da ngaa war a toppatoo li ñuy wax ressource en eau maanaam li ñu am ci alal ci ndox ci ñetti pàcc yooyu yëpp nga xam ne moo na ngànk ministère bi ñett yooyu yëpp ren ci suñu réew am ci raaya fële ci mars ci conférence Nations Unies ñu jox fa président la République prix raaya sécurité de l'eau loolu rek doy na pour ne Sénégal programme bi mu am ci mbirum ndox programme boobu àddina bi kañ nañ ko ñaareel bi muy mbirum assainissement fële ci Namibie mu am fa benn conférence bu mag suñu réew ñu jox ko raaya mu nekk premier ci Afrique de l'Ouest nekk ci ñi jiitu ci Afrique ci mbirum assainissement ñetteel bi muy mois de novembre encore fole ci Ouagadougou ñu jox suñu réew benn raaya ci mi li ñuy wax gestion intégrée des ressources en eau te ñetti pàcc yooyu mooy ministère bi loolu rek doy na pour bilan pour deux mille pour ñu wax suñu réew jéego yu mu def ci anam yooyu yëpp. léegi nag waxtaan nañ tamit ci projet yu mag yu ñu am pour deux mille vingt quatre ci mbirum ndox ci mbirum assainissement normalement ci deux mille vingt quatre usine bële nga xam ne day togg ndoxu géej di ko dox ndox mu ñu mën a naan dana pare ci mbirum assainissement am na projet dépollution de la baie de dana pare incha allah ci mbirum assainissement am na programme bu mag bu ñuy def assainissement en monde ci dans le monde rural commencé na te dana pare ci 2024 yooyu rek lañ ci lim waaye programme yi bari nañu kon boog loolu daf ñoo permettre ñu kañ agent ministère yi nga xam ne ñoo ci liggéey kañ leen Euh, euh, jox leen ay raaya ci tour président la République jox leen ay décoration mu nekk royuwaay pour ñeneen ñi nga xam ne ñooy ñëw après ci ministère bi.